si Mbacké si wàccaayu élection législative yi ginnaaw bi ñu lancé parrainage yi Fatou Néné Ndiaye madame Mbaye au conseil des collectivités territoriales mi ngi doon convoqué mboolem jigéen yi bokk si département bi si benn bokk yaakaar ginnaaw bi mu ci amee avalu madame Ndeye Saly Diop Diom mi jiite jigéenu APR yi jaare ko nag ci Fatou Diané Diourbel naka noonee tamit ci la sàkku si moom ngir ñu mën a waajal yooyee parrainage Seraf bu Mbàkke tase na fa mbooleem ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàppale yi Benno Bokk Yaakaar moom madame Mbaye jàpp na ni kat jëf ji mu amal partagé na ko ak képp ku mu ko war a waxal mu doon député mu doon responsable de femme si stade boo mën a nekk si biir parti bi bàyyiwul kenn gis na ni nag déroulement bi amal nañ ko si satisfaction. ñoom ñëpp seen xër ak seen fidélité envers le président Macky Sall moo tax ñoom ñëpp ñu jokk tey nag ministre d la femme joxoon na ko pour jigéen ñi parrainer c'est le ministre de la femme la présidente national du mouvement des femmes nam ko defe woon ci une femme un masque masque defoon na coordinatrice régionale Fatou Diané Fatou Diané ba mu ko defee décentralisé na ko jox na Fatou Sène bu Bambey la mu moom coordinatrice bi bu defee sondage Bambey moom la bi ñu defee sondage Mbàkke man la loolu mooy daw ba nëg ni ak euh, ndomba tànk gi ma yor moo ko permettre sax tey jii mu jox ma ko en tant que haut conseil des collectivités territoriales pour ma gérer waat parrainage bii nga xam ne moo jóge ci ministre de la femme parrainé wun nag madame mbay parrainé wun Fatou Diané parrainé wun le ministre de la femme son excellence le président Macky Sall la ni parrainé bi ma joxee mille cinq cent bi ma ñëwee dugg naa ci panel yi woo naa madame Dieye mi nga xam ne mooy coordinatrice Fatou Diané te xale te sawar te yàggoon na président Macky Sall lool ma ne ko léegi képp koo xam ne war na ko yëg na nga dugg ci panel yi wax ko. su ci pandaw la engagement wu jigéen ñi ak seen détermination moom jàpp na ni kat yéem na ko gis na ni seen xol moo ngi ci président Macky Sall te nag jàpp na ni bu ñu demee dinañu kat yembal parenage yi delloo siwaat ñu mën ko yóbbu ci njiitu jigéen ñi. may remercier ñëpp di santaat ñëpp di remercier képp koo xam toog nga fi ndax volonté bi ngeen am ak courage bi ngeen am yéen ñëpp ngeen jóg volontaire kenn ku ne di laaj même parrainage yi nga xam ne indaale woon naa ko fi sax kenn ku ne ñii ngi laaj cent ñii ngi laaj cent cinquante ñii ngi laaj cinquante ñii ngi laaj cent kenn ku nekk volonté googu ak xeet gi nga am ci le président de la République man sax tey daf maa yéem mais daf ma yéem daf ma yéem kon sant yàlla bu baax. lu tolloog nag junni ak juróomi téeméeri parrainage la sàkku si jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk si département de Mbacké am na si yaakaar jàpp na ni dans un bref délai lépp dina yemb.